شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه liggéeyal yàlla ci jaamu yàlla yi waaye liggéeyal Serigne Touba ci taalibe Serigne Touba yi soxna Mominatou Kébé ci lii rek la nekk ci wàccaayu màggalu Touba 2022 bi ni mu ko baaxoo di amalee nga xam ne fa yéenewul màggal ci këram te taxawul mboolem ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoom te nekk ci quartier bi fenn fu ci ne mu def fa lam fa war a def ci ay teraanga jàppale leen ci màggal gi moo tax ñu waajal paan yi nga xam ne toll na ci ñeent fukki paan ak benn benn bu ci ne def ndawal ba mu fees ñu waajal ko ba mu baax boole ci benn saakub ceeb ñu jóg dugg ci koñ bi kër gu ci nekk ñu dugg fa wàcc fa benn paanum ndawal ak benn saakub ceeb duñu xaar sax ñu leen di joxaat paan bi ndax fa lay des ñu won leen ni leen ku bokk ci yoonu murid kat doonu taalibe te Serigne Touba jox la tiraanga ji nga am jaadu na ngay dimbali mbokk taalibe yi waaye di jëf ci yoonu Serigne Touba bi bañ man cee def ba man ba mën a doon royuwaay looloo waral ñu mën a taxaw fii yëkkati suñ kàddu waaye ànd ak yéen ngir tiraanga jii nga xam ne def ngeen ko te ñëpp gis ko mu doon loo xamante ni bi àdduna war nañ cee roy waaye taalibe yi murit yëpp war nañ cee roy bi ñu waañ màggal gi ba léegi kenn ku ne gis na ne xeetu tiraanga bu nekk wàcc na fii ci kër gi waaye lan la def mooy tiraanga jooju dama koy bokk ak ñi ma dëkkal. Mhm. tiraanga jooju dama koy bokk ak samay mbokku taalube moo waral mu jël tey jii ndax lii tàmbaliwul tey waaye tey jii. gis ngeen ñu nee suba la màggal lu am solo lim defaat ni comme dañoo dëgmal bi su màggal gi te suba la naawut lu tolloog ndawal goo xamante ni ku ma ko jox di nga ci mën a màggal boole ko ak ceeb loolu nag bokkut ak enveloppe yi nga xamante ni da koy dégager di ko jox mbokk taalibe yi jëf ji nga xam ne soxna Momy Kébé mi nga koy defal waa quartier bii nga xam ne ñoom la dëkkandool fii ci Touba Mbacké sedd na seen xol lool jëf ji it kawe na seen njoxtu ñoom ñuy seede ne soxna Mominatou Kébé du lekk mukk bàyyi leen te saa su ne dina leen taxawu. jëf ji moom ni ma ko gisee moom macha allah rek yàlla nañ ko yàgg a teewe ay at yu baree baree màggal gi daal yàlla bu mu doon suñu mujj gi màggal. jërëjëf Kébé ñoo ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggaloo te wéral ko mu yàgg suñu kanam yàgg ci ginnaaw moom daal nii rek la dëkkee ñun wax dëgg yàlla nii rek la dëkkee ñun moom daal lékkul dara bàyyi ñu ñun ñoo jàkkaarloo moom kër ñoo jàkkaarloo mu kër à face wax dëgg yàlla lu mu ci manti doon rek dana koy joxe bu dee koor gee bu dee lu ci manti doon jërëjëf yàlla na yàlla guddal aw fanam te barkeelal ko yàlla na fekkee lépp njabootam yàlla bu kenn netti dara ginnaawam ke bañu ko yàlla suñu tubaab yokk xéwal yi dañuy màggal rek waaw màggal waaw ma soxna moom nit ku baax na waaw yàlla yàlla guddal fanam sax màggal nii lay def di dimbale doomu aadama yi ngi jëmmi Serigne Touba rek yàlla na ko yàgg mun ci barke Serigne Touba bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn si dara dara dara lekk yeeg naan yeeg boisson yeek ndox yeeg yëpp ay ñëw macha allah dëgg yàlla ñëpp la ñuy indil nit ku baax la koñ bi moom macha allah moom fàttewul dëkkandoom benn yoon li tax mu koy def sëñ Touba nag na yokk ba yëg ko. mu koy at mu nekk nii lay dundee ak ñun dëgg-dëgg. ñun daal noongi sant bu baax a baax di ko ñaanal. ah man man man dama yàgg ak moom fii de parce que man bu njëkk sax fii bi bi sama benn xarit bi yoroon bi mu yoree jàkka ji. boobu sax dama daa dem ci kër gi. jàkka ji eh, ki ñuy wax eh, Mor sëñ Mor Kan mm. moo yëkkoon yor fii jàkka ji mm. après nag léegi la ko keneen ku ñuy wax eh, Ibrahima Diop yor di yilimaan ji quoi mm. waaye moom yàgg na yàgg na ëpp na fukki at ëpp na ëpp na ko dëgg dëgg di ñaanal soxna si fan wu gudd ak wér ak wérle di ko ñaanal xéewal xéewal goo xamante ni day sax dàq ma nga xam ni dana weesu kawe njortam di ko sant ko gërëm ndax lu mu am nu am ca lu mu am jox nu ca bu dee naan da nu jox nu naan bu dee lekk dana nu jox nu lekk ñoo ngi koy sant ka ñaana rek yal na dund téeméeri at ak fukk ak juróom sëñ Mountakha yàgg fi te wér nu yàgg fi yéen ñëpp ngeen yàgg fi jërë ngeen jëf ñoo ngi sant di ñaan def ngeen lu rafet seen taxawaay rafet na lool. soxna Momy Kébé moom Serigne Saliou di roote ci Serigne Saliou di sotti ci Serigne Saliou mu am jébal ko Serigne Touba bëggul dara nag soo ko séenee muy dem bu laajte ci Serigne Saliou lay xëy di ci gont. loolu moom moom ni mu koy dundee moom noon la noonu la bëgg ñëpp ko defee di tànn yàlla ko noonu la ko suñu borom defee chaque année. kon nag yàlla na ko suñ borom gën a saxar rek. mu doon nit ku baax nit kuy def lu baax ci koñ bii ci quartier bii te bu ko neexan du ko ci fekk ni muy dundee màggal gi ni la bëggee koñ bi yëpp dundee ni màggal gi ñu di ko ñaanal jàmm ak xéewal ak i ngeneen ndax nit ku baax la de bàyyiwunu ñun ñi dëkk ci koñ bii waaye nag noonu lay mën a demee ndax sëtu mbaalo maram kebe bii lu baax rek lay def doomi Alaaji Njuga Kebe ji lu baax rek lay def ndax baayam rafet ba ni mu fi jógee bàyyi ko fi wax dëgg yàlla bàyyiwu ko puso bi mu réer. ni nga xam ne noonu la soxna Momy Kébé di taxawoo waa quartier bi yemul rek ci xéewal ji nga xam ni moom la leen di jébbal waaye lépp loo xam ni nemmeeku na ne war nañ ko soppi ci quartier bi dana ci taxaw ba ci làmp yi nga xam ne def na ko fi ngir leeral quartier bi. moom may moom kay lu baax rek lan lan dëkkee moom même làmp yi yi yi féete nii yëpp moo ko fi def lamp yi. ñii dend ak moom ñëpp de da leen defal waaw ay làmp dëgg-dëgg da kii moom kay nag koy noo ngi sant bu baax di ko ñaanal rek am baax rek lañ ko xamee at bëgg dëkkandoo mi fonk leen bu màggal Touba jotee at bu màggal yëpp muy def lu baax ci koñ bi ñu koy ñaanal daal suñu borom guddal fan wi yow kàttan at man-man bi ci barke borom màggal gi ndax dëkkandoo yi bég nañ mbokk taalibe yi bég nañ gan ñu nekk fii ci biir kër yi itam semaine bi yëpp xam nga ne semaine nga am ko ay gan war a jëm ak moom buñ màggalee ba nga xamante ni màggal gi jeex na loolu kenn ku ne xam na ne berne ci biir kër gi rek doy na sëkk <laughs> waaye nga ne loolu du ci yem ñi ma dëkkal fas naa yéene lu ñu nekk ma nekk ci ak ñoom mbokk taalibe yi nekk ci dëkk bi te xam ma fas naa yéene lu ñu nekk ma nekk ci ak ñoom te li ci gën a yéeme mooy soxna si li muy joxe xamul ñi mu koy jox bu ko defaree ba pare danaan dem leen xool ñu ko yittewoo ngeen jox leen ko bisub màggaluk Touba nag day bis boo xam ni soxna moom Mouminatou bi daf ko fonk lool moo tax saa yu bis bi ñëwee lépp naa def da ko yokk bu baax a baax ngir ñu màggal màggal gu mucc ayib rawatina dëkkandoom yi nga xam ni du def dara bàyyi leen xéewal yi nga xam ne moom la doon séddale ci màggal gi yéemul rek ci quartier bi am na nañu bàyyeekoo ci yeneen yeneeni quartier ñëw jël si seen wàll ak enveloppe yi nga xam ne séddale na ko mu def ay koppax te bëggul kenn ku ko tudd مسلمون صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر raditu anil mawla wa an xayri xalqihi